Three Lions yi nag mooy sirnoowu équipe nationale bu Angleterre maanaam ñetti boppu gaynde tey jii dinañu jàkkaarloo ak Pays-Bas bi nga xam ne dañuy attaqué ku leen xam ne ñoom dañuy attaqué ànd ca ak Cody po ba ca de Depay dinañu jàkkaarloo tey jii nag ak Angleterre bu organisé lool noppi ngir xaar leen défendre défante ak ñoom mën a dem ca final ba waaye tamit Pays-Bas bëgg-bëgg bi ñu am moo di final boobee kenn du leen ko nettali tey jii nag bu 19 heures jotee Angleterre ak Pays-Bas dinañu jàkkaarloo kan mooy fekki Espagne ci final ba loole mooy laaj bi samp ma leen di xaar ci commentaire yi journal bi tamit ñëw na ci doomu Sénégal yi bëgg a soppi club dem ci beneen club doxal bu dee ñaar ñi moom agent libre lañu maanaam dañuy dem ci club bu leen neex te duñu def ci ñoom benn dërëm ka ca njëkk moo di Bouna saar moom ma nga woon ca Bayern de Munich contrat jeex na tàkk jamono ji club la bëgg keneen ki moo di Cheikhou Kouyaté moom ma nga woon ca Nottingham Forest moom tamit contrat jeex na tàkk bu dee Bamba Dieng moom dafa bëgg soppi club waaye contrat am jeexagut ca lorian la nekk des na faa doxal te Lorient googee dañoo wàcce dem ci deuxième division bu France moom nag li mu bëgg moo di dem ci beneen club bu mag doxal muy Bamba Dieng journal bi tamit fàttewul waa Jaraaf rawatina Malick Daaf mi leen di tàggat moom nag li mu bëgg moo di saison bii di ñëw incha allah mu gagné ak jaraaf moo xam coupe CAF la wala ligue 1 bu Sénégal ba ci coupe du Sénégal li mu bëgg daal moo di am ay trophée maanaam am ay raaya ak jaraaf loole la Malick Daaf le ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Media fekk fa record yéenekaay match bi war a dox tey jii ci diggante pays ba ak Angleterre la journal bi fësal cë xët wu njëkk wa Xavi Simons ànd ak waa Pays-Bas ñooy jàkkaarloo ak Angleterre ànd ak jut Bellingham tey jii la nag kan mooy fekki Espagne ci final ba loolee mooy laaj bi sampo journal bi tamit ñëw na ci ñancoo Sadio maane moom nag ay rumeur jógoon na ci moom fan yi maanaam coow yu ndaw di xam le ne dafa bëgg a jugee ca Al Nassr waaye kat journal bii di record yéenekaay nee na saison bii di ñëw incha allah ñancoo Sadio maane ca Al Nassr lay football rumeur yi bari woon na lool waaye dina rester foofee ca Al Nassr loolee la record xam xamle journal bi tamit ñëw na ci Copa bi ginnaaw bi Argentine ànd ak Lionel Messi qualifié ci final ba démb Canada lañ doon jàkkaarlool gagné ko ñaari bal ci dara tey jii nag la ñuy xaar ñaari lu demi final bi guddik tey jii incha allah bu ñu reeree tëdd tuuti ba minuit jot ca la match boobee di door Colombie mooy jàkkaarloo ak Uruguay kon gaa ñi xaar leen match boobee kan mooy fekke Argentine ci final ba ci diggante Uruguay ak Colombie loolee dinañu ca xam dara bu min wi jotee incha allah ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe équipe nationale bu France rawatina di Deschamps mi leen di tàggat ak seenub capitaine di Kylian Mbappé le journal bi fësal ca wu njëkk wa démasqué jamono ji nag France ànd ak seenub capitaine toog nañu ci euro bi jaloore joojee nag waa Espagne ñoo ko amal démb lañu doon jàkkaarloo naam France moo njëkk a dugal Randal Colomwani moo dugal waaye kat waa Espagne ànd ak Lamine Yamal dañoo doxantu tuuti Lamine Yamal moomee dugal bit bu rëy match bi nekk 1-1 ñu doxalaat ay minutes yu ndaw Espagne dugalaat ñaareelu bit foofee la match bi jeexee Espagne am ndam ci kanamu France France toog ci euro bi euro bii nag waa France duñu ko gaaw a fàtte ndax doxaluñu ci naam dem nañu ba ci demi-finale ya waaye kat taxul ñu dox comme ni ñu ko bëggee woon kon nag duñu ko gaaw a fàtte naam sori nañu ca lool loolee la surnal bii di l'équipe xamle ñu jugee France wutali Pays-Bas fekk fa esport werel de Cody ak Harry la journal bi fësal ca xët njëkk wa tey ji Pays-Bas dina def réenkum ak Angleterre match boobee dix-neuf heures lay door journal bi nag dafa ñëw di xas équipe nationale bu Angleterre ngeen baal ma ci kaddu gi nee na Angleterre bu soof bii de moo nar a jàkkaarloo ak Pays-Bas leen ngir ñu dem dem ci final ba waaye problème mu équipe nationale bu Angleterre nag du kenn ku dul Harry Kane ndax Harry Kane danger dëgg la maanaam kaani xeñ gi du kenn ku dul moom ñoom waa Pays-Bas nag bëgg-bëgg bi ñu am moo di doxal ca match boobee ànd ak Cody Gakpo am ndam waaye Angleterre nag jamono jii li ñuy football ci euro bi rafetul loolee li koy firndeel moo di ci seen réew di Angleterre ñoo ngi leen di critiquer maanaam ñoo ngi leen di xarab di leen ŋàññi ndax li ñuy football rafetul du ñu nangu nag ñoom waa Pays-Bas Angleterre xañ leen final boobee waaye journal bi tamit ñëw na ci Memphis Depay Memphis Depay moomee est-ce que du mooy Ronaldo wu Pays-Bas waaye nag euro bi doxalagu ca ndax bu ñu xoolee doomu Pays-Bas yi ñu woo ca euro ba yépp moom mooy ki fa ëpp ay bit waaye nag ci histoire Pays-Bas maanaam bi ñu dalee football ak tey jii ki fa ëpp ay bit du kenn ku dul Robin van Persie moom am na cinquante but ak équipe nationale bu Pays-Bas ñenn ci euro ba jamono jii laa wax Memphis Depay mooy ki fa ëpp ay bit waaye ba léegi nag doxalagut ak équipe national bu Pays-Bas te bu ñuy football ñépp moom la ñuy bàyyi xel ñu jugee Pays-Bas wutali Londres Angleterre fekk fa Star Sport Staroup ba yenu de mi ne tuddoo Harry la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag mi ngi xool or bi li mu bëgg moo di Juillet d'or bi mu jël ko maanaam euro bi bu jeexee mu nekk meilleur buteur jamono jii nag ñaari bit képp la dugalagum waaye tey jii bu réewam di Angleterre di jàkkaarloo ak Pays-Bas li mu bëgg moo di doxal amal ab doublé su defee loolee rek mooy nekk meilleur buteur ci euro boobee ànd ak réewam nag dem ca final ba jamono ji nag ñii ñoo ëpp bit ci euro boobee Cody Gakpo ànd ak waa Pays-Bas moom am na ñetti bit ca euro ba Jamal Musiala ànd ak waa Allemagne moom it am na ñetti bit ca euro ba waaye ñoom toog nañu keneen ki moo di Dani Olmo ak waa Espagne waaye Harry Kane bëgg-bëgg bi mu am moo di tey jii mu amal doublé ndax soulier d'or bi mu mën ko jël maanaam meilleur buteuru euro boobee loolee la attaquant Bayern de Munich bi bëgg mom Harry Kane nag mi ngi artu équipe nationale bu Pays-Bas ne leen tey jii dinaa leen tegal alxatir ndax man Harry Kane maa forme maa ngi ci jàmm ju mat sëkk te naa dara yàqaluma li ma bëgg nag moo di doxal tey ji am ndam ci seen kaw kon gaañi xaar leen mat su boobee 19h lay door. ñu juge Londres Angleterre wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve rawatina seen gan gi di Thuram la journal bi fësal ca wu njëkk wa démb la yegsi ci réewu itali moo tax journal bi ne. beneen Thuram ñëw na dolleeku ci Serie A bi ndax Marcus turam ma nga fa woon ca Inter di doxal rakk ji di Kepren Thuram démb la ànd ak papam di Lilian Thuram wàcc ci réewu Italie ñu defal ko visite médicale mu xaatim contrat ba atum deux mille vingt neuf ci Juve jamono ji waa Juve am nañu gan gu bees tàq waaye gan gu mën li muy def la moom Kepren Thuram journal bi tamit ñëw na ci waa Inter inter googee démb dañoo sànni benn xeer jam ñaari picc ndax keneen di tàggat tudd insa gi yokk na kontraam waaye ba ca gub démb tamit am nañu gan gan gi Josep Martínez lu tudd doomu Espagne la ma nga woon ca Genoa xaatim na contrat ca Inter kon nag waa Inter démb dund nañu bëccëg bu neex loole la journal bii di Corriere dello Sport xamle ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fa la gaseta dello Sport moom wàllu tennis la fësal ca wu njëkk wa waaye fàttewul football bi rawatina waa Juve Juve googe ànd ak Thiago Motta door nañu liggéey bi démb waaye démb am nañu gan kenn ku dul Marcus Thuram ñëw na foofee ànd ak papam di Lilian Thuram jamono jii nag Juve bëgg-bëgg bi ñu am moo di waajal saison bi ngir scudetto bi kenn bañ koo jël ci ñoom Inter yi démb am nañu attaquant bu bees tàq muy Teremi Teremi nag ma nga woon ca Porto contram jeex tàkk ba mu ñëwee foofee ca Inter nag li mu xamle moo di noppi na ngir doxal demul ca Inter ngir toog ci banc bi li mu bëgg moo di di départ di doxal di dugal ay bit ànd ak Inzaghi jël ay coupe loolee la Teremi xamle ñu jugee Italie wëtali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay équipe nationale bu Espagne ak jaloore ji ñu amal démb la surnal bi wu njëkk wa Super Espagne à la finale Espagne gu jeeg lool dem nañu ca final ba Espagne nag soppiwul dara ci ni mu doon doxalee bi mu dooree euro bi ak tey jii ku mu jàkkaarlool dina teg bal bi doxal dugal ay bit am ndam te noonee lañu ko amalee dimbo bi ñuy jàkkaarloo ak France match bi nag métti na lool ci ndorte ji ndax France moo njëkk a dugal waaye kat gone Luis de la Fuente yi dañoo fippu ci ñeenti minutes ñu remonté France kon final bi war a am dimanche ca Berlin kenn du leen ko nettali muy waa Espagne ànd ak Lamine Yamal démb nag bi ñuy jàkkaarloo ak France Kylian Mbappé doxal na tuuti ndax bit bi njëkk a am ca match boobee moo def passe décisive bi ndax moo centré Randal ni mbëkk mu dugg waaye foofee la matcham yem moom Kylian Mbappé li ci des lépp dafa nelaw journal bi tamit ñëw na ci Alvaro Morata moom nag mi ngi ci danger lool soo moytuwul final bi mën na caa bañ a bokk ndax dafa am blessure bu ndaw bi match bi jeexee ñuy subile maanaam ñuy wane seen mbégte benn agent sécurité moo glissé bi mu am am blessure bu metti lool Espagne nag xamaguñu ku ñuy jàkkaarloog ci final ba ak kuñ mën di jàkkaarlool nag wóorugu dara seen capitaine bi di morota bokk ca ndax blessure bu mitti la am ñu jóge Marca yéenekaay jël AS yéenekaay équipe nationale bu Espagne ak jaloore ji ñu amal démb la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa fantastique heure finaliste démb Espagne gu jekk lool la ñu gis waaye Espagne bu bég ba noppi di bégale dem nañu ca final ba waaye Espagne nag ay punkal dëgg lañu te loole ñoo ngi koy wane ca Euro ba ñoo ngi doxal ci terrain bi di dugal ay bit nañu ay punkal ci po mi ndax Allemagne mi daloo euro bi ñoo ko éliminé France mi nga xam ne ci favori yi la bokkoo nit ñoo ko éliminé démb waaye démb nag gone yi kenn du ñoom ca match boobee mu di Lamine Yamal nekk gonek Barcelone bit bu rëy la dugal li mu def sax mosul am ci taarixu euro gone gu am seize ans dugal ab bit ci euro loolee mosul am moom Lamine Yamal def na ko bit bi tax ñu am ndam na ki ko dugal du kenn ku dul Dani Olmo bit boobee moo tax Espagne dem ca final national ba waaye ki leen di tàggat tudd Luis de la Fuente mi ngi wax nee na moom doyalagut ba léegi li mu bëgg moo di équipe nationale bu Espagne wéy di ko bégal loolee la Luis de la Fuente xamle. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport équipe nationale bu Espagne rawatina lamin Yamal la journal bi fësal ci xët wu njëkk wa historique taarix du ko fàtte mukk li Espagne amal muy jaloore joojee nga xam ne ñoo ngi koy amal jamono ji ci rawatina seen gone gii di Lamine Yamal dugg na ci taarix gone gu am 16 ans dugal ab bit ci euro loolee musul am te bit bu rëy dugal moom Lamine Yamal démb moo gidee waa Espagne maanaam moo leen wan yoon wi ndax France mëne woon mu dugal bit bu rëy gone Luis de la Fuente yeewu doxal tuuti óol moo dugal ñaareelu bit bi jamono ji nag dem nañu ca final ba final boobee dimanche incha allah lañu koy amal journal bi tamit ñëw na ci Hansi Flick moom nag tey jii day door liggéey bi foofee ca Barcelone entraînement yi nag du door tey jii waaye visite médicale yi tey la ñu koy door maanaam tey jii dañ leen convoqué ngir ñu ñëw bu ñu ñëwee ñu saytu seen wér gi yaram seen yaram yépp rawatina xool yi ndax xol kat mooy nit rawatina kuy daw tey jii la amal visite médicale yi kon tey la Hansi Flick di door liggéey bi ca Barcelone ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Lamine Yamal la journal bi fësal ca wu njëkk wa Lamine final Lamine Yamal ànd na ak waa Espagne dem ci final euro ba bii nag mooy juróomeelu yoon Espagne di dem ci final boo xam ne euro la soxol jël nañu ko ñetti yoon suñu ko jëlee bi mooy nekk ñeenteelu yoon ñuy jël euro bi jamono ji bëgg-bëgg boobee képp la équipe nationale bu Espagne am loolee la bi di Mundo Deportivo